maa ngi lay félicité bu baax sëñ Cheikh Thioro Mbacke taxawaay bi am na solo ñu ngi koy rafetlu jaajëf man am naa mbégte bu wër ci yow. bon asalaamaaleykum wa rahmatullah patriote yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare te di leen jox seen wàccuwaay di massaw di continuer di massaw waa baax ñi nga xamante si ni ndox mi dafa dugg seen kër ñi ngi leen di massaw bu baax a baax a baax a baax waaye di wax euh, Serigne Cheikh Thioro Mbacke. ñu ngi lay jaajëfal taxawaay bi am na solo trop vraiment jàpp naa ne président Ousmane Sonko rëccuwut lu tax mu teg la ci bopp Pastef waaye kull kuy patriote am na fierté ci yow am na mbégte ci yow am na bànneex ci yow parce que à tout moment biñ nekkee opposition ak biñ nekkee pouvoir moo ci yam foot toll yaa ngi assumé mooy lépp loo xam ne taxaw na dal ci kaw population Touba yaa ngi ñëw di taxaw ci seen wet te loolu ñun dañ ko gis il faut ñu seete ko ci suba ba léegi yaa ngi futteeku sol sa ay dàlli palis plastique di dugg ci dëkk yi di dem fépp di taxaw dem nga ba jël sa xaalis bopp jënd sa ay motu pompe jox nit ñi pour ñu pomp seen kër yi ak mbedd yi loolu ñu ngi la ciy félicité bu baax a baax a baax yaa ngi def rôle coordinateur te lii mooy Pastef don de soi pour la patrie askan wi saa bu soxlaa na la gis ci wetam saa bu soxlaa na la gis ci wetam depuis nga nekk coordinateur Pastef Touba ba léegi chaque jour ñi ngi gis loolu ci daaw bi nga xam ne ñi ngi nekk ci opposition bi yaa ngi doon taxaw di kaas di wax ne 45 milliards dugaluñ ko fii 45 milliards ku ko jënde woon ay sarbet boo ko dug boo ko defee ci ndox mi mu naan ndox mi loolu lépp nga ko doon wax tey jii euh, tey jii yaa am dëgg ci kaw gouvernement boobu yaa am dëgg ci kaw ñi doon défendre ñooñu ku gis li xew Touba xam ne 45 milliards kenn kenn kenn dugalu ko fa kon ñu ngi lay féliciter bu baax a baax a baax a baax a baax ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne def nga ko ci jege population bi nga xam ne def nga ko tey jii bu la neexoon nga ne man simple député laa mais yemoo ci simple député bi foo mën a jële ay partenaires yaa ngi koy wuti ñuy taxaw ngay jël sa xaalis di jënd ay moto pompe di jël sa xaalis di jënd ay équipement yoo xam ne yaa ngi koy dugal ci post de santé yi loolu nag ñun duñu ko gis ba pare di ci gëm suñu bët dañu koy wax taxawaay bi nga taxaw tey am na solo trop sëñ Muntaxa bu demé ba xëcc la ci kanamam di wax ak yow dafa gis né taxaway bi amna solo bi ngay dem ci sëñ Muntaxa tay sa base mom nga sol kon lolu ñun taxaway bobu ñu ngi la ciy félicité di wax coordinateur yépp dañu wara roy ci sëñ Cheikh Thioro Mbacké nañ jege population bi nañ dem ci seen wet nañ xam seen jafe-jafe pour que diko mëna yëkëti ci kaw jafe-jafe nañ koy dund ak population bi li nga xamante si nii état bi jall ñun bu dal coordinateur yi nañ dem seen dëkk yi taxawu seen wetu population bi su ko defee lépp loo xam xamante si nii population bi soxla na ko su gestoo mën leen gé mën leen a gis kon maa ngi lay félicité bu baax sëñ Cheikh Thioro Mbacke taxawaay bi am na solo ñu ngi koy rafet lu rafetlu jaajëf man am naa mbégte bu wër ci yow.